buñ xamee ka nga xam ne mooy kalaame moom la àttkat bi njëkk wax ne ko waxal li nga jotee kii ba di ko kalaame su boobaa nag moom ma ñu kalaame na ne pat ànd yar ak i teggin ba kookee di kalaame wax la muy wax ba noppi su waxee ba noppi àttkat bi ne yow mii ñu kalaame waxal yow ma dégg moom mii kalaame itam nag na wax lu wóor lu leer nañ bu mu njëkk di wax naa damaa jortu nekk nangam ak nangam na wax lu wóor rek lu àttkat mën a dégg su ko defee nag mu laaj kañuy kalaame ne ko waaw loo xam ci loolu laaj ko itam bu dee di ko kii di jiiñ bor la mbaa yi demee noonu mu laaj ko ne ko waaw lu ngeen seqoon ba loolu am ca kii kalaame bu waxee lu leer kañu doon kalaame dégg na teg ca ne nangu naa li wax wax na dëgg day kon na àtte bi daal di bind jox dëgg ka doon kalaame ndax kim doon kalaame nangu na ne lii ko kalaame dëgg la su fekkee ne kooka miim na weddi mu daal di wax ki doon kalaame ne ko ndax am ngay seere bu amee seere yu mat mu daal di koy àtteel bu fekkee amul yu seere nag mu daal di wax ki nga xamee ne moom lañ doon kalaami ne ko yow waatal miim te dem soo yoon tegam ki ñu kalaame weddi na te ki nga xam ne moo ko kalaame amul ay seere kon ñu ne yow mi ñu kalaame waatal rek miim te dem soo yoon su ragalee waat nag moom mi ñu kalaame dañuy seet ba xam na ko waaj ji jiiñe woon jiiñu dogu la ne ko yow am da ko tuumaaloon rek ne ko ñaaw naa jot ci waaye dogu ci woon dañuy teqale daawat taxqiq ak daawal ittiham daawat taxqiq mooy kii kalaame dafa jiiñ ko ko ne ko yow nattablewuma ko daawal ittiham nag da ne ko dama laa wóolodiku waatal man daal yow laa ci wóolodiku dañuy seet ba xam bu fekkee ni kooku da nekkoon yow daal yow laa wóoloo diku rek yem ca doggu ca woon kon moom bu ragalee waat rek ñu ne ko dëgg jot na la lim lay jiiñ dëgg la daa koy xañ dëgg ga bu fekkoon da ko kalaame dëgg dëgg nag ñu daa wat taxqiq moom moom mu mu ñu kalaame bu ragalee waat dañuy delloo ngi li ki ko doon kalaame ne ko ndegam jéeñ nga ko amoo seere wax nañ ko ne ko waatal dem soo yoon mu ragal a waat kon yow boo ñemee waat li nga ko jiiñ rek ñu jox la dëgg gis nga ne loolu nag mooy bu dee daa wat taxqiq mooy da ko jiiñoon jiiñ koo xam ne gu mu dogu la te bu doon jiiñu wóoloo di ko dong moom su ragalee waat moom man jiiñ dañuy jekki-jekki jox dëgg ki ko kalaame duñ ko waatloo sax bu ñu nee yow mi ñu kalaame waatal miim dem sa yoon ndax ki la kalaame mënta indi ay seere naka mu waat ba dem aw yoonam nag ki ko doon kalaame door a indi ay seere dañuy seet bu fekkee ne daa amoon seere fàtte leen mbaa mbir ma amoon na seere te xamu leen woon gannaaw ba nag mu fàttaliku seere ya mbaa mu door leen a xam kon daañu delloo ci àtte ba àttewaat ko jox ko dëgg waaye nag bu fekkee ne fàtte waralu ko umpule seere ya ko fekk woon waralu ko kañu jiiñ muy kañu kalaame bu xasee waat bañ ko ne demal rek foofa la mbir may yem bu nit jiiñee keneen kooku ne ko man mosuma seq yow dara dara ba nga dima kalaame xam nanguwul ne sax mas nañoo seq dara dara dara kon moom mi kalaame lay tax mu am dëgg rek mooy mu taxawal ay seere waaye ndegam waa ji moom nanguwul ne sax mas nañoo seq dara moom bu mënta taxawal ay seere dañu wax waa ji mu kalaame ne ko demal soo yoon duñu ko waatloo sax bu fekkee ne ki ñu kalaame dane moom mi daal mësuma seq ak moom dara dara ki ko kalaame daal di fexe ba taxawal ay seere yoo xam ne seere nañ ne siqoon nañu ba seere ya seere ne siqoon nañu te ameeloon na ko nangam nag moom waa jiñ kalaame woon moom it andi ay seere yu ko seereel ne fayoon na loolee kon seere yu ko seereel ne fayoon na duñu leen nangu li ko waral mooy moom daa waxoon ni séqutoon ak waa ji dara lu mu koy ameele dara kon nag mu waa ji taxawali ay seere yu saxal ne am lente woon nañu ba waa ji amel ko nangam moom bu indee ay seere yu ko seereel ne fayan na loolee itam fayan na loolee googee duñ ko faale duñ faale seere ya ndax moom daa wax ne mëstoona séq ak moom dara dara su fekkoon ne bi ko waa ji jiiñee dane ko rek man daal amee lu mal dara rek yem ci kon gannaaw ba bu waa ji indi ay seere yu seere ne moom mi ameeloon na ko moom itam mu indi ay seere yu seere ne fayoon na ko kon daañu nangu ni wax na dëgg fayoon na ndax dane woon rek amee lu ma ko dara te wax na dëgg ndegam ay seere seere ne fayoon na ko kon amee lu ko dara waaye bu jëkk bi moom daa wax ni mësta séq ak moom dara dara bu ne mësta séq ak moom dara dara moom waa ji taxawal seere yu seere ne séqoo nañ ba amel ko nangam gannaaw ba su indee ay seere yu seere ne fayoon na it duñ faale fayoon na googee mu ne nag bépp mbir boo xam ne boroom xam-xam yi wóote na ca bu benn àttekat àttee jàpp ca jenn wax rek loolee mu àtte ci mbir moomee moo cay dox day mel ne mbir ma mës am benn wuute waaye nag ca loola kat lañ ko yemale du tee du tee lu mel noonu bu xewaatee keneen sañcaa wax jeneen wax ju bokk te jooja bàyyi wax ja nga xam ne moom la àttekat ba àtte woon dañoo bëgg a leeral foofu ne mépp mbir moo xam ne yaay wax am na ca mbaa yett mbaa yent bu àttekat ba xasee jàpp ci jenn wax àtte ko rek ci mbir moom ko àttee moom kenn sañu koo jéggi di tebbi lam ci wax baa nga di ko yóbbu ci beneen àttekat loolu rek mooy dog du tee nag jëmmi lu mel noonu su amaatee ñu indiwaat ko ci moom mi nga xam ne moo àtte woon lu njëkk la sax bu ko neexee bañ a àtte la mu njëkkoon a àtte ndax mën naa am daa am lu gën a wóor loola ba tey bu leneen xewaatoon ñu yóbbu ko ci beneen àttekat it mën na caa seet seetu boppam du ca faale la àttekat bu njëkk ba àtte woon ci lu mel noonu mu ne nag àttekat bi àtte ba jox kenn dëgg dana dog mbir ma mooy dana jeexal mbir ma ci àdduna waaye nag ci biir moom du tax la araamoon dagan lu tey bu ëllëgee yàlla mi xam baatin moo koy àttewaat ndax xam nga kii àtte moom zahir la xam kenn ki mën naa gën a lay waxa wax bañ jox ko dëgg te fekk na ci baatin moom yàlla xam ne nekkul ci dëgg la àttekat ba àtte jox ko dëgg nag tax koo am dëgg ci baatin bu ëllëgee yàllaa koy àttewaat tutee nag bu dee fii ci àdduna moom la àttekat ba àtte moo ci wéy ci misaal bu góor ne woon kii sama soxnaa dama koo takk jigéen ji ne déedéet duma soxnaam xaw ma ko sax góor ga fexe ba taxawal ñaari seere yoo xam ne daa kompaloo ñoom rek ñu seeral ko ne ko wax na dëgg mu fekk woon bañ ko koy may soxna si amul benn pexe moom mën a taxaw ba jam seere yooyee bañ weddi seeni wax kon àttekat day saxal rek ne góor gi wax nga dëgg kii sa soxna waaye góor ga moom bu ko wóoree ci xolam ne li lépp pexe dong la waaye mësuñu koo may kii na ko wóor ne jigéen joojee jaambur la ci moom bu jotee moom itam njaaloo lay doon te yàlla moo koy àtte bu ëllëgee soxna sa itam nay jéem def nu mën a def ba góor googee du jotee moom ndax xam na ne moom du jëkkëram moom it du soxnaam kon nay jéem a bañ jotee moom bu ko ca forcé mënta ñàkk nag mu xam loolu yàlla dogal ba tey bu nit ne woon diw mii lebaloon naa ko téeméeri junni kooka daal di weddi ne amee lu ma ko dara bu fexe ba kompaloo ay seere ñu seeral ko ne wax na dëgg fekki woon nañ ko lebaloon na ko téeméeri junni ba àttekat ba àtte loola ko it moom miñ jox dëgg na ko wóor ne alali jàmbur rek lay jël joo xam ne bu ëllëgee dana ko delloo ca alaxira du tee nag àttekat bi moom li mu jàng ci téere yi rek la àtte ndax xamul baatin zahir la xam àtte na ko dal cay génn ka àtte nag bu àttee loo xam ne wóor nañ ne tegul ci yoon ndax am na yaxub alquran mbaa yaxub addis boo xam ne bu wóor la te lim àtte daal safaanoog loola mel ne bu àtte àtte boo xam ne da caa sukkandikoo seere si yéefër te alquran ne wa ashidu daway xadlim minkum alquran dane dee leen seereloo ñaar ñu maandu ñu bokk ci yéen jullit ñi moom nag mu topp seere si yéefar ba àtte faaw dañ ñu tebbi loola loo xam ne itam boroom xam-xam yépp ñoo ca maase mel ne mbokk mu góor bu taseeg maam mu góor benn ci waxi ñenn ñi dañu doon loo maam mu góor ma bàyyi mbokk mu góor ci waxi ñenn ñi ñoom ñaar ñoo bokk daraja ñu seet nu ñuy defante mooy seddoo foofu nag bu fekkoon ne attekal bi daa àtte ne mbokk mi doon maam góor ñàkk dañuy jàpp ne kon wàcc na li boroom xam-xam yi dogu ndax lañ dogu ñoom benn maam góor rek ay doon mbokkum góor bañ am dara mbaa bokk yemali leen ñoom ñaar ñu bokk seddoo kon nag kon kii àtte bu àttewul kenn ci yooyu yaar xanaa dogu rek ci xañ maam góor ma jox mbokkum góor ma dono ba faaw ñu tebbi loolee mu àtte woon ba tey bu àttee loo xam ne dafa safaanoog xiyaas boo xam ne bu leer nàññ la xiyaas mooy mbir moo xam ne yoon àdduwu ca waaye yoon àdduna ci lu mel ne moom ñu far jël li nga xam ne àdduwu ci jox ko àtteeb lee nga xam ne àdduna ca te gis ñu bokk ñu mën leen a yemale lu mel noonu nag bu leeree naññ moom mooy àtteem bañ koo def lu mu àtte rek lu wóoteeg loola dañ koy tebbi mel na jamono yi jaam amee ku bokk ak kenn ab jaam jekki-jekki goree sa wàll dañ lay wax ne ndegam yow mën ngaa fay ki nga ko bokkaloon wàllam da nga koy remboursé wàllam jaam bi lépp gore loolu dañ koo xiyaas ci li yoon di wax ne ku goreel lenn jaamam ñu ne la danga koy mottali ci lu war lépp gore dañ caa xiyaas ku bokk ak kenn ab jaam jekki-jekki goreel sa wàll dañ lay wax ne soo ko moomoon lépp day gore kon nag degam goreel nga sa wàll te mën ngaa remboursé ak wàllam faaw yoon day àtte nga remboursé ko wàllam jaam bi lépp gore lu mel noonu xiyaas la bu leer buñ teg ci fu wóor a wóor su àttekat bi àttee lu bokk tëg loola rek faawu ñu teggi ko masala moomu téere yu bare bari andi na ko bu nit nekkoon ci suuf diir fukki at di wax ne maa ko moom di tojaka tabaxaataka soppandiku nam ko neexe wala mu di ko luye di fayu liyaas ba gannaaw fukki at yee matee am na waajoo xam ne ma nga woon ca wet ga dara dalu ko woon amutoon benn gàllankoor bu tee mu wax ci diir bu yàgg boobu mu jekki-jekki taxaw rek ci yoon ne suuf soosu maa ko moom kon kenn du ko faal dañu jàpp ne ki ci nekkoon diiru fukki at di ci tabax ka toj di defe ko dindi di luwee ko fayu kii nekk fi di gis te waxu ci woon dara bu amee fukki at daal bu ci bëggee taq di wax kenn du ko déglu waaye day fekk nag gisuñu ñoom ñaar ñu boole seeni mbir gisuñu itam muy mbokk su fekkee dañoo bokk ay mbir di dem ak a dikk wala ñu di ay mbokk moom bu amee fukki at bu ci waxee itam ñu déglu ko ba xam fu muy mujj waaye ndegam ki ci nekkoon jaambur la ci moom jotewuñ dara sequñu dara fukki at yi mu ci nekk yépp moom mi ngi fi woon amutoon benn ngànt duñ ne daa tawat duñ ne daa tukki woon duñ ne daa ragal bu ci waxee nangam ak nangam ba fukki at yi mat nag door di wax naa daal suuf si maak moom mbaa nangam ak nangam kenn du ko déglu kenn du ko faale bu fekkoon nag ki ci taq di wax day mbokk ci ka ci nekkoon moom ba juróom fukki at sax bu ci waxee ñu déglu ko ndax mbokk mën naa seetaan mbokkam muy soppandiku ci yëfam mu jàppee ko ne boppam du ko wax dara kon moom ba li fa juróom fukki at bu ci waxee rek ñu déglu ko waxam ci yoon fu muy mujj lu may nag moom mi nga xam ne moo ca taq taxawal na ci ay seere ne moom moo ko ca dëkkaloon dama ko abaloon rek kër gi ndax mu jaaxle woon ci fu mu dëkk buy seetloo ne kon li dër bi yàgg-yàgg waa ji da doon defar ka defaraat rek waaye nekkutoon di sopp xandiku sopp xandiku ku moom di toja ka dindee ka tabaxaat moom kon daañu déglu ki wax ne daa ko abaloon rek mu dëkk ci daañu ko déglu topp mbir ma ba xam fu muy mujj ci yoon dañ ko wax rek ne ko ki yàgg na ci fukki at yaa ngi fi woon te waxoo ci woon dara faaw ñu topp ko ci yoon ba xam li yoon di wone wala baayam mbaa maamam kat moo ko ca dëkkaloon te dat bi war naa jeex loolu de moom bu ko waxee noonu ñu déglu ko atte seen diggante ba xam fu muy mujj ba tey moom ma cay wax bu ne suuf si kat waqaf la woon daam ko génne woon ci moomeelu boppam yóbbu ci moomeelu yàlla ne woon nañ ci def nangam diw mii nag booba tey moo ci nekk rek di def nangam ak def nangam waqaf moom dañuy jàpp ne luy mat a fonk la lu yóbbu la ci moomeelu yàlla daañu ko topp su fekkee waqaf la woon ñu nangoo ko ci ki ci nekkoon la mu yàgg delloo ko ca waqaf ga te jàpp ne la mu fa defoon lépp ci kaw dëgër bopp rek ak njublu la ko fa defe woon